Serigne Makhtar Darame Serigne Makhtar Darame mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1869 ci dëkk bu ñuy wax nag Njaaba Kunda nekkit nag ci Saalum ci dëkk boobu nag la feeñee jamono ci atum 1869 muy doomu soxna Faati Njaay ak Serigne Ibrahima Yaasin Darame ñaari jëmm yi nag ñoo ko meññi muy benn doom nag ci waajuroom wu jigéena bi muy feeñ jamono nag fekku fi nag waajuroom wu góor waajuroom wu góor wi nag di Serigne Ibrahima Yaasin Darame laataa doomam ji nag di feeñ jamono nag la génn àdduna juróom weer nag ginnaaw bi la doomam moom nag feeñ jamono magam nag jum bokkal nag baay moo ko jël nag tudde ko nag boppam moom sëriñ Ibrahima Yaasin Daraami mii nag ab jihaatkat nag la woon mënoon nañ koo jàppe nag Màbba Jaxuba wala Ahmadu Seexu ci xare yooyu mu doon def nag ci la génn àdduna ci suuf suñuy wax nag coofaak nekkit nag ci Kaolack foofu sax nag lañ ko denc moom sëriñ Ibrahima Yaasin Daraami mii nag ñu baree bari nag Henri Yaasin nag lañ ko gënoon a xamee doom ji nag di sëriñ Maxtaar nag bi matee dal alxuraanul karim magam jii ko jëloon nag tudde ko boppam moo ko joxoon itam nag doom doomi bàjjanam bu ñuy wax sëriñ aali seeni suuna siisee sëriñ aali seeni suuna siise mii nag ci dëkk bu ñuy wax nag kër jébeel nag la newoon moo ko dalal alxuraanul karim moo ko jàngal alxuraanul karim nag ba mokkal moo ko jàngal itam nag lii itam nag di xam-xam mu teel a nekk itam nag ku yéeme teel nekk itam nag ku am bi muy jàng sax wax nañ ne nag sëriñ Abdoulaye Niass nag bu kaw la gane si woon na ko doon jàngal muy sëriñ aali seeni suuna siise mii ci dëkk boobu nag di kër jébeel ak ngan waaye bisub keroog nag kii ko doon jàngal nag di sëriñ aali seeni suuna siise mii mi amul woon nag lu mu terale sëriñ Abdoulaye Niass moom moo ko fekk nag ca tokkoorum ñaambi ba nag ak nag ak jaaxleem ginnaaw bu mu ñëwee nag laaj nag sëriñ Ali Seyni Suuna Siise mii mu di ko xamal ne daal sama ngan gi lu ma ko terale nag xaw na maa të sëriñ Maxtaar Faati nag moo jël nag xaalis nag ba mu dencoon jox ko nag sëriñam bii ko doon jàngal nag mu teral nag ak ganam ginnaaw nag bu ngan gi jeexee sëriñam boobu doon ko jàngal alxuraanul karim nag nekk itim nag doomu bàjjanam ñaanal na ko itim nag jox ko itim nag ay garanti doon ko xamal ne jërul nag ngay so sonn ci lenn li boroom jamono nag mi ngi fii da nga nag ci aw ñoñam waaye nag kay takk ndoom ak baat ga nag mooy nekk itam nag sa cër ci ñoñam loolu itam nag bàyyi woon na ci xel nag ci wax ko sëriñ daaraam bii nag wax mu wéy nag daara di jàng xam-xam ci ginnaaw nag bu mu jàngee alxuraanul karim nag ba noppi am na bis itam nag ci daara ji donga yi nag laxaso woon na nag dañuy ñibbi wala itam nag dañuy jóge nag ci daara ji booba itam nag am nawet itam nag la ñuy wàcc bisub keroog nag sëriñ aali seeni suuna siise mii nag jaaxle woon na ci la ñëwee nag ci sëriñ maxta Matar Faty Dramé mii di ko xamal ne donga yi di dégg naa nag dañuy waaj a dem waaye nag bu donga yi demee nag nga toog nag moom a gënal ndax bu ñëpp demee nag nga toog day mel ne daara ji nag kenn jógewu fi bu ñëpp toogee nag nga dem day mel ne daara ji nag kenn nekku fi wax jooju nag sëriñ Ali Seyni Suuna Siise mii nag waxoon sëriñ Matar faati Dramé mii taxoon na itam nag sëriñ Matar Faty Dramé continuer toog nag ci dëkk boobu nag di kër jébeel fa la wii nekk nag ba ni sëriñ Ali Seyni Suuna Siise mii nag génnee àdduna mu doog faa bàyyikoo nag dem marché bii ko sëtëm sëriñ Mahmoud Daraame nag way mën ñuy wax nag jaar jaaru sëriñ Maxtaar Faati Daraame moom fi mu jaar nag ci am njàng ak ndawam gan googu nag maam Abdoulaye Niass nag gana si woon nag sëriñ daaraam boobu ak lenn tim nag ci ak njàngam ak ndaw ndawug nag sëriñ Maxtaar Faati Daraame nag la ñuy xamal ñu teewlu nag marché nag bi ko sëtëm defal sëriñ Mahmoud Daraame ma sant yàlla sama buur mi sàkk ma ta def ma góor moo def basiir muy nasiir def ban ba yit muy sama giir ma way yow mi mata way murid nga yow bu mat di way sosuma man daay baay sa baay ba it lislaam la moom ci aw jihaat lañu ko boom mu doon yëgit raayey boroom ca nga sosoo balaa xandam sa baay jiitu ba fi ndey nga mbata dal sa ndey jëwëy ñu na jaay nga wuti may ba jot ca rubri jaali wëy na jaay gërëm la dénk la mboolee kon sikku la xibaar la ban ba naxu la tawaay sa kon farxala am na ci bis ganne fa jas di xab dalaa ma sant ñas te mooy cosaana ibra ñas mu def def yi ni ku ñu sas fekkoon sëñ ba daa di yées ngi rëkki jaaxle aku tiis boobee la sos yéen a juyees naa njawara yaay li fi sës boobee nga wëy ci bàlla ndiit digg fa aali daa ko mu wéet ku dul fi Bamba mooy sa njiit maam Balla it moom sikku la Seex Xaali mi moom sang la jox na la doom far yokku la kon war na sët bi bàkk la hidaaya it miin na la yow miinis sa ñooñ ci waxtu ndaw daawun joxit hidaaju ndaw dañ daa fekkante daaru yow muxtaade yaa bari ngërëm foo mos di jaar ñu di la yéem da ngaa dëggal mën a gëm moo tax nga jot la gaañu lem noo man di mel cerno nga gëm daawoo wutit yow ku la xam loo man di xam la jëm say maye ngi deesu la jëm am nga ngërëm ca cerno moom te am ngërëm a woom ci ban ba moo ko bari koom ngiruk sa yitte maa la gëm na yàlla wa sama alayhi ya man wa man nag la demoon ku ñuy wax sëriñ Balla Ndiiti Siise nag moo fa newoon moom itam nag jàngalekatu xam-xam la woon mu wéy nag nekk foofu nag ci moom di sàkku itam nag xam-xam bi mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di tawa ci tawa googu nag daana fa jógee di dem nag bii nag di pasi xaritu tubaabam nag buñ doon waxee nag Jules Crépin Jules Crépin boobu nag moo nekkoon ab xaritam ab commerçant itam nag la woon am na soxna su sëriñ daa wax na soxna faatimatu tàmbidu soxna sëriñ Alioune Dieye Bousso nag la woon ci dëkk bii nag di dàgga sànqaay moom itam nag daana ñëw itam nag ci pasi googu ci tubaab boobu nag du Jules Crépin suñ fa masaa nag dajee day gis ne daal sëriñ Maxtaar Daraami mii nag bi te lépp loo xam ne daal moom soxna faatimatu tàmbidu bii nag soxla na ko léeg-léeg nag dana am ay jafe-jafe nag digganteem ak tubaab bii ci xeetali googu nga xam ne nii nag sëriñ Maxtaar nag dana ko xeetali ci digganteem ak tubaab boobu ci la soxna faatimatu tàmbidu mii nag waxtaan ak sëriñ Maxtaar Daraami di ko xamal ne sama borom kër bee nekk nag ci dëkk bi nag di dàgga sànqaay nitug diine la te soo fa ñëwee nag jort naa ne nag da ngeen mën a def fa sëriñ maxtaar faati daraame mii nag wéyal na nag ndigal loolu ko soxna faatimatu tàmbe du mii nag digal tax nag mu jóge fa nag ñëw nag ci dëkk boobu nag di dàgga sànqaay seet si woon nag sëriñ Alioune Dieye Bousso mii ginnaaw bu ñëwee nag ba nuyoo ñoom ñaar nag seeni mbir nag dëppoo na sëriñ Alioune Dieye Bousso mii nag defoon na jëwriñ sëriñ maxtaar faati daraame mii am na nag ñu wax na sëriñ maxtaar faati daraame mii jébbulu woon na nag ci sëriñ Alioune Dieye Bousso mii am na ñu ne dañoo wóolante woon ba tax na nag sëriñ Alioune Dieye Bousso mii nag defoon ko jëwriñ sëriñ Alioune Dieye Bousso mii nag daana ko yónni ci maam Cheikh na Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru nag ay yooni yooni yoon ci ay addiye yoo xam ne nii nag war na ko koo yit booba itam nag maam Thierno mi ngi nag ci dëkk bi nag di Mbacke Kajoor ci ndigalul sëriñ Touba Seexul Xadim mu wéy nag ànd ak sëriñ Alioune Dieye Bousso moomu nekkitim nag jëwriñam di ko yóbbul nag ay addiye nag ci maam Cheikh na Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru booba itam nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim mi ngi nag ci dëkk bi nag di Ceyeen Jolof ginnaaw bu Seexul Xadim bàyyi ko Ceyeen Jolof ba ñëw nag njaareem sëriñ maxtaar faati daraame mi bàyyi ko nag ci dëkk boobu di dàgga sànqaay dem njaareem nag seeti seexul xadiima ginnaaw bu mu ñëwee njaareem nag wax ne nag day jébbulu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ci la ko seexul xadim booleeg maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne nag nga jébbal ko sa bopp mu dëppoog nag la ko ka ko doon jàngal nag wax di sëriñ aali séeni suuna siise mii doon ko wax ne nag borom jamono nag dana feeñ danga nga bokk itim nag ci aw ñoñom kay takk ndoom ak baat ba nag mooy nekk sa cër moo tax nag bi mu ñëwee njaareem nag jaayanteeg seexul xadim seexul xadim nag boole koog maam Thierno mu dëppoog nag la ko ka ko doon jàngal alxuraan nag wax mu wéy nag ànd ak sëriñ Alioune Dieye Bousso mii wéy itam nag topp nag ci ginnaaw maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru sëriñ Alioune Dieye Bousso nag nekk itam nag jëwriñam laataa sëriñ Alioune Dieye Bousso nag di génn àdduna foboon na doomam itam jébbal ko ko muy ku ñuy wax soxna Faati Bousso soxna Faati Bousso mii soxna Aysatu Tambédou mi ko wanaleeg sëriñ Alioune Dieye Bousso moo ko meññi mu nekk nag soxnaam nag su mu njëkk a njëkk a gis itam nag soxna Faati Bousso moom sëriñ Alioune Dieye moo ko meññ muy sëriñ Moodu Mbàkke Daraame di kim faye woon Cheikhul Xadim soxna Aïcha Daraame ak soxna Adama Daraame mu wéy des nag ci tundu Saalum woowu ci dëkk boobu itam nag di dàgg sànqaay ba ni sëriñ Alioune Dieye Bousso nag génnee àdduna bi sëriñ Alioune Dieye Bousso génnee àdduna la maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke nag yónnee ndaw ci dëkk boobu nag di dàgg sànqaay doon xamal nag képp koo xam ne ni daal yaakaar nga sëriñ Alioune Dieye Bousso na nga jokku nag ci ginnaaw sëriñ Maxtaar Faati Daraame mii sëriñ Maxtaar Faati Daraame nag wéy nag sanc na nag daara ci dëkk bu ñuy wax nag ndaraame paatee ci côté passi fukki at ak juróomi nag la fa dëkk boobu itim maam Ceerno nag moo ko fa jëlee di ko wax ne nag la fa bàyyi woon ci néeg ba nga moom la fa tabaxoon mu nekkoon itim nag néeg bu yéeme boo xam ne nii itam nag waa tund woo itam nag daanañ ko seet si ginnaaw bu mu nag ndaraame paate la sanc nag dëkkam nag bu njëkk ñu gën koo xam nag ci daarul muxti ci suuf si nag di kirpa ci wetu dëkk bi nag di màkk kawoon juróom-ñaari at nag la def foofu bi mu sancee nag dëkk boobu nag di daaru muxti ci suuf si nag di kirpa ku ñuy wax nag Maawo Juuf nekkoon itam nag chef de canton wala bëggoon a nekk nag chef de canton Maawo Juuf mi nag moo nekk maamu maître El Hadj Juuf mi ñëpp xam nag ci réew mi ginnaaw bu mu ñëwee nag jàmbat nag sëriñ Maxtaar Faati Dramé mi ak bëgg a faloom sëriñ Faati Dramé itam nag garanté woon na ko itam nag da nga falu bu Maawo nag gañee nag canton boobu yaatu dolliwaat ko nag sëriñ maxtaar faati daraame nag ci suuf soosu nag di kirpa mu wéyal nag ab liggéeyam mu nekkit nag ku yéeme moom sëriñ maxtaar faati daraame mi am na nag ab kóllëreem nag nekkoon itam nag ab taalibeem buñ doon wooyee mi nag da doon def di ko xamal ne man de doom ju ma am ba tàmbalee am ci moom yaakaar rek nag mu wujj nag suñu boroom sëriñ maxtaar faati nag di ko xamal ne soxna si de kii mu ëmb na góor la bu feeñee jamono nag nanga ko tudde nag sama sëriñ ba nag maam Thierno a Faty Mbacke ndaamal daaru dana gudd fan dana am nag wërsëg sëriñ Moussa Ndiaye nag soxnaam si nag ginnaaw bu mu amee gone mu fob ko nag indil ko nag sëriñ Makhtar Faty sëriñ Makhtar Faty nag moo ko tudd tuddee ko nag maam Thierno Ibrahima Faty ba nëga ni nag sëriñ maam Thierno Ndiaye mi moom sëriñ Moussa Ndiaye mi nag mi ngi dund ko am nag wërsëg moom sëriñ Makhtar Faty Dramé nag sancaat bu ñuy wax na kër góor fa la daloon di sanc nag dëkk boobu ñam àndaloon nag di sanc dëkk boobu nag di daarul maxtaar ñu mën caa ràññee nag cheikh mbàkke ndaw sëriñ ibrahima buso sëriñ sàmba sàmb ci dëkk bu ñuy wax nag leeral sàmb sëriñ moodu mbàkke daraame nag di ataawoo ak sëriñ abdul xudóos jeng ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom àndaloon nag sanc dëkk boobu defar na nag ay góor yàlla nag yu takkoo takku ñu mën caa ràññee nag sëriñ ibrahima buso sëriñ alin sàmm ci dëkk bu ñuy wax nag leeral sàmbu ak sëriñ abdul xuddoos jeng ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ne nii sëriñ maxtaar daraame nag moo leen defar mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag mu mujjee sanc di daarul maxtaar ci ndigalul maam Cheikh na ibrahima faati mbàkke ndaama daaru ci 1937 nag la ko sanc ci 1944 nag la génn àdduna lu bare bare bare bare itim nag defar na ko ci dëkk boobu mu nekkoon nag jaamukatu suñu boroom nekkoon itim nag ku sell sell bokk itim nag ci njaboot goo xam ne itam nag alxuraanul karim nag la ñu xam njaboot googu nag alxuraan googu itam nag ñu xam tam bokk ci tax na itam nag sët yi mu bàyyi lu ëpp nag ñaar fukki daara itam nag am nañ ko ci dëkk bu sell bii nag di Touba biir réew mi itam nag néew na lool nag nga dem ci ab dëkk doo fa fekk nag sëtam nag bu fa taxawal daara mu nekkoon itam nag liggéeykat nag bu ràññeeku colonial yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo fi nekkoon nag jiite woon administration nag bu Sénégal remarqué woon nañ ne Serigne Makhtar Darame mii nag jàmbaar la woon ba tax na itam nag takkaloon nañ ko médaille boo xam ne nii day wane na itam nag mbay itam nag ñi ko ci mën nag bariwul lépp loo xam ne itam nag mas naa ñu rey itam nag ci yaay toolam ki mu doon xoole nag cheikhul xaddim nag la ko daa yit muy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu nekk nag ku bëgg maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru maam Ceerno itam nag ku bàyyi woon xel la di sëriñ Maxtaar Daraame boo delloo da ngay xam ne sëriñ Maxtaar Daraame mi fonkoon la moom itam nag ku mustatee dara la la ngir maam Ceerno Ibrahima Faati moo tax itam nag dëkk boobu itam nag di daarul muxti ay addiyéem nag dafa daa jaabante ci lu takkoo takkoo takku nag jëm nag ci yaakaaram nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci jàng ak jàngale bay nag ak liggéey dundee itam nag aw ñaxam lu mu am itam nag yit nag Seexul Xadim rawatina nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci la sax nag ba nim génnee àdduna mu nekki nag ku jaxasoog mag ñi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim rawatina nag saalum googu nag mu cosaanoo ku jaxasoo woon nag sëriñ Moussa Tafsir Dramé la sëriñ Moussa Tafsir Dramé na doom ju ñu wax ko ko nag ngir mu dëkkoo ko ñu nekk nag ñoom ñaar itam faboon na doom ji ñu wax nag soxna Aysa Daraame jox ko itam nag sëtub sëriñ Moussa Tafsir Daraame muy sëriñ Moor Njaaba Daraame ngir itam nag mu dëkkoo ko sëriñ Moor Njaaba Daraame itam nag am na ci nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag maam Cheikh Mbay Daraame sëriñ Moodu Daraame soxna Faati Saaxo Daraame ak soxna Xadi Daraame jàmbaari sëriñ Tuubaa ji ñu doon wooye nag sëriñ Alioune Seck nag bu wanaar moom itam nag ku jaxasoo woon ak sëriñ Maxtaar Daraame la sëriñ Alioune Jéy Buso moo ko njëkk a may soxna ab taawam nag sëtub sëriñ Alioune Jéy Buso la soxna Faati Buso nag moo ko meññi muy sëriñ Modou Mbacke Darame moom itam nag nekkoon na jëwriñu sëriñ Alioune Ndiaye Bousso bi fi sëriñ Alioune Ndiaye Bousso bàyyi ko ndonoom moom la maam Thierno Ibrahima Faty nag sàkku mu wéyal ko sëriñ Alioune Ndiaye Bousso mi itam nag moo ko booleeg itam nag Seexul Xaddiim wanale ko itam nag maam Thierno ku jaxasoo woon sëriñ Mbay Mbuuma Njaay la ñoo bokkoon nag nekk Saalum sëriñ Mbay Mbuuma itam nag foboon na doomam jébbal ko nag sëriñ Maxtaar Faty Darame mii nag ngir mu dëkkoo ko ku jaxasoo woon nag Cheikh Mamadul Bachir Mbacke la ibnu sëriñ Touba nag Xaadim Rasuul la mook Cheikh Mamadul Bachir itam nag ñoo bokkoon nekk itam suuf soosu nag di saalum ku jaxasoo woon nag sëriñ Balla Caane la mu bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon nag ci ginnaaw sëriñ Touba Seexul Xadiima foboon na itam nag ab taawam jébbal ko sëriñ Maxtaar Faati Daraame nag ngir mu yar ko mu nekk nag ku jaxasoog sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo tudde na sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo doom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru moom la joxoon léppam tudde na maam na doom mu nekk nag ku Cheikh Moussa Ka nawoon soo delloo sax ci téere bii Cheikh Moussa Ka bindoon cheikh yi ma ngi cay seede nag seexu sëriñ Maxtaar Faati Daraame mi ñu teewlu ko Darame Modou Darame doom jabil kiraam mu nekkin nag ku jaxasoog sëriñ Basiiru Seck moom sëriñ Alioune Seck nag wanaar sëriñ Basiiru Seck moom sax def na nag ay way jagleel ko sëriñ Maxtaar Faati Darame moomu ci farlu nag gum farlu woon ci ginnaaw maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ay addiye nag yu mu ko daa yi dëkk bi itam nag di daaru muxti nu ko sëriñ Maxtaar Faati Darame nag fonke woon bëgg nag gu ko maam Ceerno bëggoon ñu teelu nag way yi ko sëriñ Basiiru Seck way sëriñ Basiiru Seck nag doomu sëriñ Alioune Seck nag bu wanaar seeni jëf seeni xar xam na ca ma wér yaa Moustapha yow mi noon xam góor ñi xam fa ñu xaw xam seeni jëf moy sa mbég yaa tax ma feeñali mbir gëm naa ko ngir yow sa baay saaneex bu jiitu la woon say maam waxi noppi xuus nañ ca géej ga góor ñi di wër Cheikh Maxtaar moom jaar nañ ay barab yu sori miin naa këram dem këram ay yoon di fàggul wér tax na ma dem daaru muxti naan ca géej ga fa ne tuutu mu lekk ma ngir xiir cib xalel dina dul sax naa fa jàkka ja kër maam carno ay wi sëriñ maxtaar daraame yoroon na nag soxna suñuy wax soxna faati buso mook soxna faati buso nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag taawam ba di këm faye woon nag sëriñ tubaa seexul xadiima di sëriñ moodu na nag soxna suñuy wax soxna faatima jaw mook soxna faatima jaw nag am nañ benn bant muy sëriñ cheikh fatma daraame di kim faye nag na nag soxna suñuy wax soxna aysatu cinna daraame mook soxna aysatu daraame nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee sëriñ jibril Dramé sëriñ Alioune Dramé nag ñu gënoon koo xam nag ci sëriñ Kéba Dramé ak soxna Jaara Dramé yoraatoon na nag soxna suñu wax soxna Fatma Seynabou Dramé moo soxna Fatma Seynabou Dramé itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Xuddus Dramé sëriñ Moustapha Dramé sëriñ Maam Thierno Dramé ak soxna Aminta Dramé yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Seynabou Ndiaye moo soxna Seynabou Ndiaye itam nag am nañ benn bant muy sëriñ Ndaam Abdourahmane Dramé yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Kumba Tayba mook soxna Kumba Tayba itam nag am nañ benn bant muy sëriñ Ousmane Ousmane Dramé yoraatoon na itam nag soxna suñu a soxna Faati Njaay mook soxna Faati Njaay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Alioune Dramé sëriñ Omar Dramé ak sëriñ Babacar Dramé yoroon na nag soxna suñu wax soxna Jaara Diba waaye moo soxna a Diba nag amuñu nag ak njaboota soxna yii nag la dëkkoo woon njaboot yii nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot googu mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Adama Dramé bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Dramé ci dëkk bu ñuy wax nag kër Moodu Majaw nag lañ ko joxoona mook sëriñ Moodu Dramé nag am nañ benn bant muy sëriñ Moodu Aada Dramé Daraame nekk nag jànkatub xasida ginnaaw bu soxna aada Daraame nag jógee nag ci sëriñ Moodu Daraame ci dëkk bii nag di kër sëriñ Moodu Jaw joxaatoon nañ ko nag ku ñuy wax sëriñ Elaaji Moodi Daraame ci dëkk bu ñuy wax jaagaan moom soxna aada Daraame nag mook sëriñ Elaaji Moodi Daraame nag am nañ benn bant muy ku ñuy wax soxna jàngu Daraame doom ji ñuy wax soxna Aysa Daraame bi mu matee dem kër sëriñ Moor Njaaba Daraame nag lañ ko joxoon di doomu sëriñ Moor Bode moom sëriñ Musaa Tafsir Daraame mook sëriñ Moor Njaaba Daraame itam nag am nañ ak njaboota ñu mën caa nag Cheikh Mbay Daraame Serigne Modou Daraame soxna Faati Saaxo Daraame ak soxna Xadi Daraame doom ji ñuy wax soxna jaara nag guddul aw fan laataa muy dem kër nag la génn àdduna doom ji ñuy wax soxna Aminta Daraame itam nag guddul aw fan laataa muy dem kër itam nag la génn àdduna njabootam yooyu nag kër yooyu ñu dem doom yooñ fa am ñooy lenn itam nag ci sëtti sëriñ bi mu wéy des nag ci dëkk boobu nag mu mujjee sanc di daaru maxtaar ci atu 1937 nekki nag ci wetu dëkk bii nag di kër ma ci wetu frontière u bi ci dëkk boobu nag la nekk nag ba nim génnee àdduna nag ci atum 1944 mi ngi génn àdduna nag ci dëkk boobu di daarul maxtaar ci atum 1944 laataa nag muy génn àdduna ajuma ji jiitu nag ajuma jim génn àdduna lakk gu metti nag moo amoon nag ci dëkk boobu di daarul maxtaar ñeen fukki sàq ak benn nag yam fu amoon yëpp a tàkk nag ba mu des benn muy ba mu tudde woon soxna jaaratullaahi néeg yaa kër ga nag itim nag tàkk bi ajuma ji del see nag la génn àdduna booba nag fekk na kam yaakaaroon di maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru génn nag àdduna ñetti weer yu teg nag ay fan nag ginnaaw bi ñu yëgal ko nag taawu maam Thierno ba di sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke nag moo jóge daaru moxti ñëw nag ci suuf soos nag di saalum ci dëkk boobu nag di daarul maxtaar ñëw nag taxawu nag taalibe waajuram woom wii bi mu ñëwee nag ba taxawu sëriñ maxtaar faati daraami mi lañ koy xamal ne ajjuma jëlee ñu génn de sàq yi mu fi bàyyi woon nag yépp a tàkk nag ba jeexa benn sàq nag bi mu fi bàyyi woon tudde woon ko soxna jaaratullaahi dong nag moo fi desa sëriñ Moodu Awa Balla nag di leen xamal ne sàq moom fu ñu jaar nag jot ko ngeen doog koo jëfandikoo jëfandikoo wala nag ngeen joxe ko nag ki ko moomoon ci la njaboot ga nag wute nag beneen xaalis nag buñ taxawoo nag seen waajur fob nag sàq moom nag mu tudde woon soxna jaaratullaahi ñu bojj ko nag jox ko sëriñ bi nag mu indaale ko mi ngi génn àdduna ci bisub ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weeru nag diggu tëbaski ci atum 1363 nag ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weeru diggu tëbaski ci atum 1363 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 3 novembre 1944 vendredi 3 novembre 1944 1944 ci dëkk boobu nag mu mujjoon a sanc nag ci ndigalul maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag moo ko taxaw ñu jébbal ko boroomam ci dëkk boobu nag mu mujjee sanc soo delloo nag ci marché bii ku sëtaatam way di sëriñ maam Ceerno Daraame moom sëriñ Jibril Daraame moom sëriñ Moodu Mbàkke Daraame moom sëriñ Maxtaar Daraame mi ngi xamal nag dundug maamam gii barkeel nag gomu barkeel xéewal goo xam ne nii itam na ko ci suufu fasi soosu mu jàppe ko nag wurus woo xam Darame mu ñu xamal nag cosaanu sëriñ Maxtaar Darame du wax nag waajuram mooy sëriñ Ibrahima Darame nitug yi ne la woon waaye jihaatkat nag la woon koo xam ne nii itam nag ci ngir lislaam jëm kanam na itam nag ci la daanoo mu ñuy xamal nag ba tey nag ci marché bi na sëriñ Maxtaar Faati Darame xamul nag waajuram ginnaaw nag bu waajuram dëddoo ba am juróom-ñetti weer nag ci la feeñ jamono bi mu tolloo nag ci wuti xam-xam muy alxuraanul karim ci juróom-ñaari atam itam nag ci la waajuram wu jigéen wii di soxna Faati Njaay itam nag génn àdduna tànka mu am nag ab cër bu yaatoo yaatu nag ci diine ji mu nekkin nag ku jaayanteeg seexul xaddim di ko liggéeyal seexul xaddim itam boole koog maam Thierno itam nag mu di ko liggéeyal ki ko tegtal maam Thierno nag ak seexul xaddim mooy sëriñ Ali Dieye Bousso mu mujj nekk itam nag ku sëriñ Alioune Dieye doyloo ba muy dox digganteem ak seexul xaddim di dox itam nag digganteem ak maam Thierno a Fatim Mbàkke ndaamal daaru daana fa yóbbu itam nag addiye itam nag yu takkoo takku addiye itam nag yu fasantikoo addiye yoo xam ne itam daawul xaarante da daa dajee nag ci yoon wi fépp foo xam ne ni itam nag jortoon na nag bu fa demee am nag lu mu mën a yit nag maam noo daana fa dem daana wax ne itam ragalul nag benn dëkk ndax fépp foo xam ni daal bu fa demee am nag lu mu mënee joxe addiya ñeme na fa ku jaxasoo woo nag itam nag i àdduna yi la ba tax na itam nag ay jafe-jafeem néew na lool nag mu daa takk mu ne nag bépp addiya boo xam ne nii daal nit yaakaar na ko sëriñ Maxtaar Faati Daraami mii nag joxe na ko itam nag addiya ragal yàllaam itam ak sàmm itam nag ak xam ak itam nag dafa tolloo woon itam ak ni ko suñ borom bëggee nag ci santaane ko mu nekkoon itam nag ku tabe ku ragal yàlla ku bëgg itam seexul xaddim ak maam Thierno waaye ku daa dimbulee ndax alalam nag dawu ko boolee kenn lu baree baree bare bari daal ci marché bi nga xam ne nii sëriñ maam Thierno Daraame nag nekk nag ab sëtaatam defal na ko nag maamam jii nag di sëriñ Maxtaar Faati Daraame sëriñ maam Thierno Daraame nag doomu sëriñ Jibril Daraame la sëriñ Jibril Daraame doomu sëriñ Moodu Mbàkke Daraame la Moodu Mbàkke Daraame nag doomu sëriñ Maxtaar nag marché bi ko maam Ceerno defal kàllaamay arab fi kulli buqaati ardin jalla naaziluhu mubaarakan aabidan jawhara maknuuni bi daaka qad anzala rahmaanu jalla ala fi qutri saalum mata ramzu lmaarini wa kaana waaliduhu cheyqun taqin wariun mujaahidan saabiran fi rafhi zaddiini bacda shuhuri thamaani mawti waalidihi qad asraqat samsu saalum faxrda alkawni wa ummuhu yowma an kaana lahu amalun li talabi alcilmi maatat laysa bilwahni wa umruhu له سبع أعوام لدى العلماء لكن له عرض علم وافر الصون قد بايع البمر بالتسليم والقدم كذاك كان الذي مصباه ذا الدين قد استدل إلى القديم شيخ علي جاي فزار عمسته بالوصل مأمون يهدي إلى كان أضعافا مضاعفة ما كل عن حمله ركب البياضين وفد يعود كذا وفد يعانقه إلى الذهاب ريال كلما حين في كل آونة في كل نازلة ليلا نهارا يزيل الجهل وإلى السلمين طاف البلاد جميعا بعد معلمه في جد مكسبه نال السلاطين من كل مختلف الأنواع هدية الناقة صالحكم في عملها عيني لكن حقيقته ساوت صيعته زهدا وجودا خمولا عابد ليني قد أنجز الوهد حقا بعد مصدقه عهد الأمانة رهنا مغرم الدين الله أكرمه شيخ بامبا أوصله ما أمشى مقلده صلاح الدارين في يوم جمعة خير بعد مرضته جاءت منيته له بكل ما حسن جزى الإله له في كل ساكنة مه كل محركة جنات صقلين صلى الإله على المختار والكرما والآل وصحب ما أهل الميامين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أخوكم في الله Maam Cerno Ibrahim Darame ba tey nag boo delloo itam nag ci marché bii ko sëtëm sëriñ Maxtaar Darame nag way di doomu sëriñ Moodu Darame mi ngi ñuy xamal nag lu baree baree bari nag ci dundug maamam gi taxawaayu maamam nu mu bëggee woon nag Seexul Xadiima lu baree baree bari daal ñu sëtam bi nag di sëriñ maxtaar daraame nag di xamal ñu teewlu ko hamdan liman ahaanana al imaana wa baadahu al islaamu wal ixsaana cheikh sayid al muxtaaru yaa gëm yàlla dundal sunnas yoneen ba xam nga yilla sariyaatoog xaqiiqa moom nga làmboo ci aw doxiin wu sell yaag sa mbooloo yaa tuubal yàlla boole kooki xawf maharaja wal husni yaay sariifu yaa dëddu yaa sàmm te yaa wakiilu yaa mën a muñ balaa yi la wóolu am nga ngërëm fa aari jéeg toomaam jaa amaat ngërëm fa cerno raw sayidal muxtaaru yàggam cerno saxoo hidaaya am nga ndam ba cerno maam cerno ibra faati ndaamal daaru mooy ki la ba nga sañci daaru ya sañci daaru muxti gi fa saalum ya sañci kirpa yow siggil nga saalum sa daaru gi akay bari jaloore i gaay yu baax yi yaara yupp manoore na yàlla def salaatu wassalaamu ci xayru xalqilaahi laa malaamu te dolli say ngërëm ta dolli say may te yokk say sët ba ñu gétte say may ay xalifaam nag nii la tëdde li ko dale nag ci atum 1990 kam fay woon sëriñ Touba Seexul Xaddiim di sëriñ Moodu Mbàkke Daraame moo njëkk a nekk ab xalifaam nag moo ko wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Maxtaar Daraame mooy sëriñ Cheikh Fatma di ki mu fay woon nag sëriñ Moussa Tafsir Daraame moo ko wuutu nag ci atum 1990 ba ci 2003 ñetteelu xalifa sëriñ Maxtaar Daraame ci atum 2003 la nag ba di sëriñ Abdou Ndaam Daraame di ki mu nag sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ñeenteelu xalifa sëriñ Maxtaar Daraame mooy sëriñ Alioune Daraame moo fi nekk nag nag ba nëgëni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 daaru maxtaar dajale woon nañ nag génn kuréel di ci fàttaliku nag sëriñ maxtaar daraami mi bis boobu itam nag amul woon bis fixe dañuy def nag saa bu ñu ko jekkoo nag ci at mi nag taxawal ko am na beneen bisu màggal nag buñ koy amal moom sëriñ maxtaar faati daraami sëriñ basiiru Darame moom sëriñ Moodu Darame nag moo koy amal ci dëkk boobu nag di daaru maxtaar ñetti fan nag ci weeru tabaski nag lañ ko jàpp mu ànd koog nag ak nag ay taalibeem am na beneen bisub cant nag ak bu ñu koy amal nag ci dëkk bu seel bii nag di Touba ci bëccëgu 25 juillet nag bu jot ci janatul firdawsi nag lañ koy amale ci Touba sëtam bu ñuy wax nag sëriñ Maxtaar Darame nag moo koy amal doomi sëriñ Moodu Faati Darame la moom sëriñ Keeba Darame moom sëriñ Maxtaar Faati Darame bis yi daal mooy bis nag yu ñuy fàttaliku nag sëriñ Maxtaar Faati Darame ñuy ñaan ca ka dem jébbal maam Ceerno a Faati Mbàkke ndaamal daaru kañ doon wooye sëriñ Maxtaar Daraame sanc dëkk bii nag di daaru Maxtaar nekkit nag ci suuf sii nag di Saalum yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem ngir jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay alxuraanul karim amin nul karim amin